waaye sëñ Tuubaa moom xam nga ku ci ëppale ki ëppale nga xam ni moom moo ëpp ëpp cër ci sëñ Tuubaa li sëñ Tuubaa doon séddale moo ci ëppale mooy El Hadj Falilou Mbacké man maa la ko wax ah. te waxuma la lu may làmbot bokkoon na ci moo ji saatam waaju ñàkk ju ñëw Cheikh Fallou may ko mu oomal fa yàlla lu yaa ko bañ bañ bañ asal loolee dafay xam te mooy ki def seex faalu mi gën ñépp yàlla soorala soorala amiin maha waaw foo xalaami na bindum sëñ Fallou bokkoon na ci moo ji saatam waaju dof junu yeew Cheikh Fallou faj ko mu wér bay baaku yëlaw waaye bokkoon na ci moo ji saatam waaju ñëw bëgg nguur Cheikh Fallou fal ko mu raw maasam ga yëlaw ku weddi lii laaj Senghor Senghor faloo fal ba ca kaw Senghor ni seng ca kaw jey seex fallu yàllaw bu leen ko piis bu leen xapp xappal la fallu waxoon xool leen ko maa ko fi teg day yokk yàllaw soo la mini ma la waxare mbindum Cheikh Bamba Yàlla